li ñu tax a jóg nag euh, waxtaan bi ma tënk si olof li ma jatoo expliqué ADV dafa nekk euh, parti bu ñu naan Alliance des Verts euh, mu ngi jëlee xam-xamam si mbooloo mu takk bu daje woon fu ñuy wax Canberra en 2001 si Australie ne dañuy xool léegi naka la àddina bi war a doxee pour que bien-être bi ñu fàtte woon si nit ki di ut comme comme rek ba fàtte santé nit ñun nag bi ñu taxawee ñu xool ñu xam ne suñu économie euh, dafa euh, sooxe dafa sooxe ba pare euh, li nga xamante ne mooy wàllu alam bi nekk loo xamante ne jëluñu ko jox ko gëddëm si li nga xamante ne nekk na économie moo waral tey jafe-jafe yu dëkk yu am bëri si wàllu santé wàllu éducation bi ñu jógee nag taxawal ADV dañu ne ñun. dinañ jub euh, jàppale peuple bi population yi muy sénégalais yi euh, jéem a séddoog ñoom li nga xamante ne mooy suñu gis-gis si wàllu environnement si wàllu éducation si wàllu politique de santé bi ñu demee ba tënk loolu ñu tënk ko si benn programme boo xamante ne moom la tuddee programme mu euh, pencum tàngee mooy suñu programme bi nga xamante ne ñu ngi koy làmbat di ko gëstu euh, bi ñu demee nag ba xam ne léegi war nañu euh, dajeeg sénégalais yi war nañu dajeeg suñu peuple war nañu dajeeg euh, ñi nga xamante ne ñooñu tax jóg moo tax tey ñu toog fii pour wax leen fi ñu jëm fi ñu jëm nag ñaari mbir moo ko lëmb dafa am loo xamante ne dafa nekk li li ñuy liggéey pour yéen ak li nga xamante ne dañ koy liggéey ànd ak ak bi mooy doomu Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi si bitim réew euh, bi ñu jógee si loolu ñu ne euh, lépp li nga xamante ne xew na si koom-koomu àddina bi si koom-koomu pays africain yi li ko waral mooy euh, wàllu alam bi dañ ko dugalul si suñuy politique de développement ñun nag ñu ne gis nañu yoon bi nga xamante ne suñ ko lëkkaloo ñi yàlla dënk nguur gi mën nañ leen dimbale ba ñu gis li nga xamante ne mooy des politiques yi mën a suqali réew sàmm wér yaramu doomu aadama sàmm wér-gu-yaramu gàncax gi sàmm wér-gu-yaramu jur gi si loolu euh, ñu ne ñu nag ñun Alliance des Verts euh, dañoo taxaw pour bokk si lépp loo xamante ne dina nekk élection pour que suba euh, fu nit war a mën a taxaw di décider pour peuple sénégalais mu am ñu taxaw pour di wattu bien-être si wàllu politique publique euh, li nga xamante ne aussi nekk na suñu engagement mooy ñu fexe ba Sénégal euh, ñu yor ko yorin boo xamante ne dafa euh, tënku si wax ju rafet dafa tënku si jëf ju rafet dafa tënku si jëfalante bu rafet parce que li may wax rek moo si nekk nee na benn sénégalais gënu bëgg Sénégal beneen sénégalais ñu ñëpp ko bëggandoo peut-être gis-gis yi ñooy du wute des fois euh, alliance des verts ñi ko sëq euh, ay góor la ay jigéen ay ndaw yoo xamante ne fii ci Sénégal euh, bi ñu jugee ba léegi moonte nañu pratiquement dans toutes les régions des cellules yoo xamante ne ADV am nañ militant fépp li nga xamante ne nag mooy suñu gis-gis fi ñu toll nii mooy ñu jéem a fexe ba élection yëpp yu ñu jëm kaddu ADB nekk kàddu gu ñuy dégg taxawaayam nekk taxawaay boo xamante ne dina jëriñ doomu ADB ak askan euh, li ngeen di euh, xàmmee ëllëg militant ADB mooy taxawaay bu muy taxaw yu yar taxawaayu teggin ak euh, respect parce que balaa ñuy togg ak yéen tàggu nañu kilifa yi ñu war a tàggu waxtaan nañu kilifa yi ñu war a tàggu si wàllu diine si wàllu aada ba ñu jox ñu seen ndigal moo tax ñu ñëw tey toog di wax ak yéen donc euh, su ma résumé euh, loolu ma ñëw ADV nag euh, dafa organisé wu soo demee si région bi am na ñu ko fa taxawal nga dem si département bi am na ñu ko fa taxawal nga dem si commune bi am na ñu ko fa taxawal nga dem si quartier yi am na ñu ko fa taxawal ñooñu ko taxawal nag ñoom ñooy boole seen doole ba ñëw tënk ñu ñoo toog ak yéen au niveau national di wax ak yéen mooy direction parti bi yàlla def ñu wóolu ma jiital ma. Euh, di ma jox seen xalaat pour que ADV war a mën a nekk une réalité politique ci Sénégal donc en résumé euh, loolu laa bëggoon wax euh, di wax ñëpp fi ñu toll nii liggéey bi commencé na ci suñu parti massifié nañ ko li ñu am sax raw na suñu njort mais dafa am lu ñu téye woon mooy Covid bi moo taxoon ñu xawoon wàññi suñu liggéey. li leen woo aussi congrès international bi ñu organisé bokk na si parce que dañoo war a woote en 2021 euh, ay kilifa si àddina bi yëpp ñu def benn euh, congrès fii bu ànd ak benn forum te forum boobu si la ñuy démarrer travaux yi et comme yéen suñu mbokku presse bi suñu partenaire ngeen euh, foog naa ne chaque mois dinañ leen woo wax leen fan la ñu toll si liggéey bi pour que demee forum bi su taxawee ngeen am si seen wàll voilà